Euh, li ñu mën a jàpp ci audience bi man sama xel déjà dafay dem ci soxna si Khady Ndiaye nday Khady Ndiaye heure bi moom rek a taxaw kanamu chambre criminelle ñu koy atte te te nday Khady Ndiaye ci dossier bi dañ koy toppee euh, complice maanaam auteur principal bi neewu fi Euh, Ndeye Khady Ndiaye nag ku dëkk Sénégal war nga ko sargal surtout tey jii euh, du ma avocat de mais jigéen moo ñu jur ñun ñëpp te li mu dund depuis ci affaire bii depuis début bi ba tey nii gis nañu lu xew ci salle bi cette dame est à terme maanaam dafa ëmb te incha allah du yàggatul dara léegi yàlla may ko mu mu mais gis ngeen dafa taxaw. avocats yi parce que ñu ñëpp ay avocat lañu ay droits de l'homme am na sax jigéen bi nga xam ne suñu naataango avocat boo xooloon ci dossier bi mais mënu ko muñ ba dafa ñëw def incident ni président mayel kii mu toog ndax jigéen bu wérul la te fi mu toll gis nga ko sonn na mu am incident parce que président bi nanguwul loolu te ñaari soxna yi monté aussi nekk président wax dëgg yàlla xam naa am nañ leen metti mais noonu la ñu demee ba ci fin bi procureur ci boppam nee na waa soxna si mën nga toog ça dañ dañ ne tollument bi nga xam ne bu ñu lay atte yow jigéen ngay waaje wasin sax duñ la wax duñ la duñu tenir en considération mbir moomu te jigéen bu biir bu am problème ci justice muy problème mu xaalis wala problème mu bor wala problème mu divorce ak lu mënti doon juge bi da sa kër ba nga wasin nga door ñoo ñu door la atte donc xamuñu luy urgence pour lii pour ndaw si li gën a bon tey jii elle comparaît devant une juridiction criminelle avocat mi xool nañ situation bi ñoom ñëpp ñu génn salle bi kenn défendre ko te yoon dafa ne juridiction criminelle mënoo ci taxaw amoo sañ-sañ taxaw ci te amuloo avocat même bu ñu lay jàpp maanaam premier jour bi ngay taxaw juge d'instruction muy inculpation ba amul avocat procédure bi day nul waxuma la jugement loolu moo tax chambre criminelle état bi ci boppam mooy def li ñuy wax assistance juridictionnelle di fay avocat pour ñu défendre accusé yi amul avocat donc loolu leer la tey jii de li ñuy dund nii mu ngi nii maintenant nag Sonko Ousmane Sonko képp ku koy défendre en tout cas ñun ñi yàlla def ñu sol ñu am mu am cofeel ci ñun ñaan ñu ko ba fi ñu toll nii man de dama ne sant yàlla bu baax Ousmane Sonko euh, jàppale ko ak procès procédure c'est une succession de bénédiction maanaam yëpp ay xéwal la parce que liñ ko liñ ko teg ni mu diisee ni mu ñaawee mais mu toll fii euh, suñu borom bu lay jox ndam fu ko neex la koy jaarale te ndam mënul weesu lii euh, Ousmane wax na fi waxu désobéissance civile wax na fi résistance mais su ko waxul du doom du nit sax parce que moom li ko dal. juróom-ñaari yoon yu mujj yiñ ko fi woo tribunal ñetti yoon yëpp xaw na ci ñàkk bakkenam ñëpp xam nañ ni mu demee ba tey ji li muy dund Ziguinchor xam nañ ko ba fii Dakar wu fi mais li xew Dakar démb buntu këram xam nañ ko waaw tey jii li gën a garaaw ñu koy woo chambre criminelle déjà opposant bu dee nii ñu mën ko woowee chef de l'opposition ndax voix yi mu amoon ak doole bi ko yàlla may ci réew mii mais kooku nga ko yóbbu chambre criminelle déjà ñaaw na ci condition yu mel nii ci dossier bu ñàkk fayda bu mel ni bu salté bu mel ni bu nga xam amul benn maanaam amul solo te dara du ci dëgg ku ci nekk fii xam nga ni ñi monté complot bi seen bopp nee ñu mbir mi dara amu ci waaw bu ñu tolloo foofu ñu ne par force dañuy atte mais nañ ko rafetal bu ñuy atte c'est pas parce que nit ki dafa woote résistance wala désobéissance que doo ko jox kayit parce que le problème gis nañ fi seen ay naatango yu ne jot na kayit du dëgg ku ci nekk fàttaliku bés bésu penc balaa bésu penc sax sa sa bàmmeel ak bés bi yàlla ne fal yow ma la tuzlamu nafsun sayan wala tus aha non gis ngeen sëñ bi dañuy fontu rek mais li ñu xaar ah te yàlla waxul kenn dara de man mi wax yéen xaw ma ndax naa naa yendu wala ndax naa fanaan waaw ku ci nekk nanga set lay xaar te loo fi def danga koy fay bon tey ji normalement mënuñu woon retenir affaire bi parce que Sonko kenn convoqué wu ko ni ko ma soxna kan waxee loolu moo am mais nooy wuyu see xam nga nit doo wuyu si parce que rajo ga dégg dañ lay àtte wala ci euh, ci journal déedéet dañu lay jox kayit te kayit bi danga nga koy déchargé wane nañu preuve bi nii que mbir mu pon bu garaaw am na te commissaire bi tey jii toog euh, Ziguinchor ñu koy wax Massaly moo def li ñuy wax un du mai parce que bu dul woon faux le 15 mai commissaire bi nekk fii euh, Adramé bu dikk du dem la 15 mai muy lundi bi parce que mardi 16 lañ doon convoqué pour audience bi lundi 15 à 8 heures mu présenté wu cité Kër Góor gi moom directeur u dig bi nekk fii mu ne gisu fa Ousmane Sonko eh, mu ngi dem Kër Massar seeti Khady Ndiaye mu jox Khady Ndiaye convocation Khady Ndiaye signé parce que bu ñu la convocation da ngay signé Khady Ndiaye signé dem ñëw fii directement ci greffe bi ñu ne ko suba mooy le 16 sa audience mu ñëw mais Sonko jotul kayit boobu la preuve le le 15 ne wu fi woon mu ngi fële Ziguinchor commissaire Ziguinchor le 11 fexe na moom ba def kayitam boobu nag mooy faux bi parce que dafa ñëw décrire na sax këru Ousmane Sonko nee na kër gu weex la mur bi def na presque deux mètres de hauteur am na sax ay barbelés ce qui est faux parce que ku dem foofu xam nga ne amul ensuite nee na dama fekk Sonko ci buntu kër gi mu taxaw ci devanture bi ce qui encore faux parce que Sonko du taxaw foofu même buy jël oto sax du taxaw foofu donc fa fekk Sonko jox naa ko convocation bi mais convocation bi moom signé wu ko moom tam commissaire xamul ni euh, convocation donc amul signature amul dara c'est un faux parce que bu duloon faux le 11 boobu kon du ñu toog le 15 patron di Adramé bi nekk Dakar dem si dëkkër góor ni comme moo tax ma ne dañu sant yàlla parce que Sonko li ñu ko def yëpp day xëpp seen kaw dañuy def ay yi nga xam ni mais rafetul sax ñu koy waxtaanee parce que duñ la gëm. est-ce bi moom mu ñàkk fi euh, lay am si procès bi ak si Sonko. non amul benn jeexital parce que ay nit rek ñooy àttee gis ngeen dossier bii bu dee ñi koy àttee ay nit lañu bu dee ay doomu aadama lañu ay nit parce que je pense que sax boo demoon que an sax génnee fa ay malade jox leen dossier bi ñu xool wala nga jël toutes les données def ko ci ordinateur ñu xool Sonko amuñu fu ñu jaar ba condamné ko mënuñu ko déclarer coupable parce que dara amu xam nga dossier euh, peu importe Sonko nekk fi wala bañ fi nekk témoins yi maanaam seede yi ñu convoqué ñoo waroon ñëw ñoom ñëpp seede bu ci nekk rek mën nga régler dossier bi mieux que cinquante avocats parce que ñoom lu ñu dund ak li ñu fekkee dañuy wax parce que témoins ñaar moo am ki ki fekkee fekkee ak ki gis ak ki dégg am na sax témoin bu ñu mën wooyee de personnalité parce que mën na dégg mbiru waa ji ah man de lii weddi naa ko parce que diw mënul def lii mais bref ba témoin yi gën a important ñëwuñu mais nan nga bëggee ni da ngay atte bii bi Sonko ci boppam ku ko atte rek la bëgg ndax bu doon loolu li mu ñëw fii ci tribunal benn opposant ñëwu ko fii ci tribunal bi dem na ba ñëpp bere nañ ko sax mboq mi parce que dafa comme leen ko wax borom kër la borom ay soxna la mboq mi ba ngi dund donc moom li ko gënal ci dossier Adji Sarr bi mm-hmm. waaye mu ñëw taxaw. mais seen pexe pour ngeen internationaliser combat bi. loolu loolu ko parce que combat bi ñun rek ñu fi am na Sonko am na ay ay militants partout à travers le monde am na ay avocats yu fi doon ñëw normalement bara dugg Sénégal ñu leen du ngeen fi duggee. parce que aussi li ñu waroon bind xëy na am na ay fuite ñu gis ko ñu ne kii bu ñëwee kon day yàq suñu affaire te ñun ku ci nekk am bind nga lu mel noonu lu gën a garaaw tey jii ñun lu ñu. bëggoon mooy lii rek ñëw plaider def suñu liggéey mais kii du procès du dara ñi ko xam nag moo tax ñoom ñooy def tout pour que Sonko bañ a ñëw en réalité. voilà parce que loolu bu ngeen ko comprendre dul c'est pas la peine xel nag loolu lay jëriñ da xalaat parce que ñoom est-ce que euh, comparution Sonko arrangé na leen mais bu leen arrangé woon daañ ko daañ ko jox comparution euh, euh, citation comme ni ñu ko daan def. mais bii baaxul c'est parce que ñoo ko def exprès. merci beaucoup voilà c'est tout. la prochaine étape la prochaine étape ce sera mu ngi ci loxo subhanahu wa man xaw ma ko li ma xam rek mooy euh, ni ñu koy atte ni contumace la tudd atte bi baaxul parce que Ndeye Khady Ndiaye amul avocat donc lii du atte kenn mësu ko gis kenn musu ko gis ci àdduna gis nañ fi temps mais amul avocat avocat bu génnee amatul avocat te seen avocat yi maa ngi leen di euh, sargal di leen sant di leen gërëm parce que vrai avocat la ñu gis nañu li ñu daj ñun ñu génn ñoom tam ñu ne du ngeen ñu gën a gore ñun tam dañuy génn parce que yéen bu dee auteur acteur auteur principal yéen la def nii ngeen gedd salle bi ñun dofuñu dañ leen di top te loolu jar na sant parce que ñoom depuis ñun ñu ngi liggéey non mënuñ mënuñ ci dara non ci dara dans la mesure on n'est pas présent dans la salle mënuñu plaider ne pas plaider c'est une façon de plaider ñu ngi plaider beneen façon ensuite juge yi ay robot ay nit lañ de ay doomu aadama lañu dossier bi c'est pas parce que ko Sonko newu fi que dañ koy déclarer coupable de parce que déglu ndaw si ndaw si mënuloo wax ñaari baat yu taxaw waaw déedéet bëgg woon sax RAS mooy Rabi Adji Sarr mooy rien à signaler waaw moom vraiment vraiment honnêtement amul benn problème moom tiituñu ci loolu ñoom ñoo tiit ñi bañoon Sonko jàkkaarloog moom c'est un dossier dans lequel moi je ne je ne m'étais pas constitué au cours de l'instruction Donc c'est un dossier que je ne connais pas encore. Il y a des avocats qui étaient constitués depuis le début. Et euh, donc c'était normal que, ayant fait noter ma constitution ce matin, que je puisse disposer du dossier et du temps nécessaire pour le consulter. Alors malheureusement, président m'a refusé nous a refusé parce que nous sommes trois ou quatre avocats qui nous nous étions constitués Hein, six, hein, voilà, six. il me corrige. Donc, euh, six nouveaux avocats, nouvelle constitution. Et pour une affaire surtout qui vient pour la première fois. Parce que rappelez-vous que l'autre semaine, lorsque l'affaire a été évoquée, elle avait été renvoyée à ce matin d'office par le président pour respecter les dispositions du code de procédure civile euh, pénale euh, qui euh, accorde un délai minimal de trois jours. donc à l'accusé qui a été interrogé pour comparaître. Donc euh, ce délai euh, n'a pas été respecté puisque l'accusé Ndiaye a été interrogé la veille. Donc il fallait observer donc, euh, le respect de ces dispositions du Code de procédure pénale. C'est pourquoi le tribunal a renvoyé d'office à Huitaine. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle composition. Et euh, le tribunal est présidé par euh, un juge qui avait même, soit dit en passant, siégé dans le dossier de Mambéignan. qui aujourd'hui préside la chambre criminelle, et qui nous a refusé un droit basique, fondamental de la défense, euh, le droit à disposer du dossier et à disposer d'un temps suffisant pour le consulter. Parce que je dois le préciser, il s'agit d'un dossier qui est composé de 471 pages, d'après ce que m'ont dit les confrères qui étaient déjà constitués, et euh, qui est également composé de plusieurs vidéos de plusieurs euh, éléments audio. Donc même un renvoi à huitaine ou à quinzaine aurait été insuffisant pour nous permettre de pouvoir prendre connaissance de ce dossier-là. Mhm. Alors donc il s'agit là d'une violation absolument euh, flagrante des droits de la défense. Nous, sommes en matière criminelle et euh, tout accusé qui comparaît devant euh, la chambre criminelle a le droit d'être assisté par un avocat. C'est une prescription absolue du Code de procédure pénale. Alors, face à cette situation, les avocats d'Ousmane Sonko ont décidé de se, de se, retirer et les avocats de Ndeye Khadindjaï, qui étaient constitués depuis le début, depuis l'instruction, qui étaient prêts, eux, à plaider le dossier parce qu'ils le connaissaient bien, se sont solidarisés parce qu'ils ont estimé qu'il était inconcevable mm. que des confrères nouvellement constitués qui ne connaissent pas le dossier, qui ne l'ont pas lu, puissent se voir refuser le droit de plaider, la possibilité de plaider ce dossier-là. Alors donc, c'est la raison pour laquelle tous les avocats, aussi bien ceux de Ousmane Sonko que de Ndiaye, se sont retirés de la salle. Alors, ce que nous constatons, c'est que les débats se sont poursuivis. Le président a décidé de poursuivre les débats malgré le fait que Ndiaye comparait aujourd'hui seul à la barre. Et ça, c'est une violation du Code de procédure pénale qui prescrit une obligation d'assistance de l'accusé qui comparaît devant la chambre criminelle. Donc ce que le président aurait dû faire, ça aurait été de constater qu'il n'y a pas d'avocat pour Ndekhadi Ndiaye et de renvoyer le dossier, de saisir le bâtonnier pour la commission d'office d'un nouvel avocat ou bien demander à Ndekhadi Ndiaye d'en constituer un ou plusieurs nouveaux. Ce qui n'a pas été fait, ce qui vicie aujourd'hui à notre sens la procédure. toute décision qui va être rendue à de cette procédure-là euh, sera absolument viciée et ne sera pas crédible, en tout cas aux yeux de l'opinion, puisque c'est une affaire criminelle qui est appelée pour la première fois. Moi, j'ai un dossier criminel pendant depuis près d'un an et demi, qui est renvoyé d'audience en audience. Ça n'a posé aucun problème. On des députés euh, du PUR a été au 18 juin ou au ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun accusé en détention qui nécessite qu'il soit jugé dans des délais, euh, je veux dire, raisonnables. Tous les accusés sont en liberté. Il n'y a absolument aucune urgence à vouloir ju ju ju juger ce dossier-là aujourd'hui même. Alors, donc voilà ce qui s'est passé. Donc tous les avocats, aussi bien ceux de Ndekha que ceux de Ousmane Sonko, ont décidé de se retirer. de la salle. Alors, quelle est la décision que vous comprenez ben, si, ben, si, C'est une décision que les avocats ont prise, donc il euh, ne faut pas me poser la question de savoir si c'est une bonne décision Euh, si ce n'était pas une bonne décision, on ne l'aurait pas prise. Nous avons euh, pesé le pour et le contre, nous avons discuté avec notre client et nous l'avons informé que si le tribunal s'entête à vouloir retenir le dossier-là, nous, nous ne pourrions plus l'assister, c'est tout. Voilà, et, et, moi, de toute façon, je suis nouvellement constitué, je ne connais pas le dossier. Donc je ne peux pas me permettre de, de, de plaider un dossier de cette nature euh, avec... Euh, un dossier aussi volumineux sans en avoir lu une seule page. Donc euh, voilà. Et puis maintenant, pour le reste, euh, ils se sont solidarisés confraternellement entre avocats, respectueux des droits de la défense. C'est un minimum pour un avocat. c'est waaw li ñu li ñu bëgg a tënk ci wolof. Euh, man damay wax ci turu avocat Ndeye Khady Ndiaye. di leeral ci kàllaama Kocc Barma euh, lan moo tukkee ci audience bi tey. comme bi ngeen ñëwee ci biir salle d'audience bi gis ngeen ko woo nañ dossier bi tey bi ñu woowee dossier bi avocat Ndeye Khady Ndiaye jóg juróom-ñeent lañ mais juróom-benn yi ñoom ñu ngi door a ñëw ci dossier bi bi coow li tàmbalee am na léegi ñaari at nekkuñ ci woon juróom-benn yi kon xamuñ dossier bi te booy layool nit il faut nga xam li nga koy layool lan la pour xam loola il faut nga jot kayit yi jot lépp lu bokk ci dossier bi nga càmbar ko gëstu ko waxtaan ci ak sa cliente laaj ko lii ma gis comprendre ma ko lii lan la lii lu muy niru lii lan la ba pare avocat yi bokk toog dajaloo am benn tëralin boo xam ne ñoo ko bokk ne ñun ñëpp ci dossier Ndeye Khady nii la ñuy taxawee mais juróom benn avocat yooyu nga xam ne ñu ngi door a ñëw ci dossier bi bees man ci laa bokk bi ñu sàkkoo ci tribunal bi muy chambre criminelle bi ne nañ ko dàq ni ko yoon maye mooy les droits de la défense sont absolus parce que suñu constitution moo ko wax boo demee article neuf suñu constitution in fine dafa ne les droits de la défense sont absolus à tous les états et à tous les degrés de procédure mooy donc dañu war a jox matukaay yëpp avocat yi nga xam ne ñooy layool ki ñu topp xeetu ñaawteef bu toll noonu pour ñu mën a jël seen motukaay yu war ci seen teeyu bakkan ci jàmm ak seen aafiya pour ñu mën ko layool tribunal bi malgré li ñu wone ne ñun ñëpp ñu ngi door a ñëw ci dossier bi ñun juróom benn yi chambre criminelle bi bañ ne moom du ko dàq ek daf koy atte tey ñu jàpp ne kon suñu sañ-sañ suñu àq suñu yelleef ak bu suñu cliente mu di Ndeye Khady Ndiaye ci mun pour ñu mun ko layool layoo bu mucc ayib tribunal bi muy chambre criminelle bi daf ko salfaañe ñun nag ay avocat lañ bu chambre criminelle salfaañe li yoon maye ñun avocat du ñu toog foofa di ko dëggal kon avoca yi ñu toog ñun avocat Ndeye Khady Ndiaye waxtaan ñu ne ñun mënuñu nekk ci layo boo xam ne suñu àq suñu yelleef ak bu suñu client muy Ndeye Khady dañ ko salvaaje dañ ko nappaje kooku mënuñ ca taxaw di am luñ cay wax kon ñu bokk juboo ne dañuy génn ci layo boobu parce que layoo boo xam ne ken joxoñu suñ sañ-sañ ñun dañ ciy génn ñu génn ñun ñëpp maintenant dañ koy layoo sans avoca mais loolu aussi c'est illégal parce que en matière criminelle am avocat c'est obligatoire kon même ñun bu ñu déggoo suñu biir ne du ñu mën a layoo parce que joxoñ ñu temps bi war may ñu ñu gis dossier bi may ñu ñu càmbar ko may ñu gëstu ko aussi chambre criminelle bi dafa waroon a jël beneen avocat désigné ko parce que kenn warul atte kenn en matière criminelle sans moom avocat kon chambre criminelle bi lii muy def nii sax tegul ci yoon dafa jalgati yoon. mais est-ce que na sañ-sañ bañ beneen avocat bi nga xam ne tribunal moo ko koy bon loolu munaguma euh, mënaguma ci bu ko neexee bu ko neexee mais tribunal bi yëguñ benn yoon fu ñu jëlee benn avocat tànnal ko ko mais ci yoon dañ ko war a tànnal beneen avocat parce que en matière criminelle c'est obligatoire mais client bi am na sañ-sañu moom ne man diwo ma gënal këlee ma gënal mais yeggaguñ foofu. te ko itam. donc fi mu ne ban décision ngeen jël a mais décision bi ñu jël mooy ñu duggaat ci salle ñun ay avocat lañ. suñu àq ak yelleef yi gën a ndaw. Mhm. mu di droit de la défense. bu suñu boss pour suñu client pour ñu mën ka taxaw mhm. pour ñu mën ko teewal nu mu gën a rafete mhm. nu mu gën a ñoŋe ñu tere ñu ko mais ñun avocat lu ñuy defati ca booba saal. kon suñu warugar dañoo génn bàyyi leen saal am nañu info comme quoi am na beneen avocat bu buy wax Ndeye Khady Ndiaye ci biir saal bi. bon yëguñu ko ñun amul. amul ba ñuy génn amul. mais xamuma parce que moom moo fa nekk ca biir. moom moom am na sañ-sañam peut wax ca loola. mais waaw moom moom boppam moom mooy to moom ko neexee mu bañ. af ku ne yaa moom sa bopp boo demee tribunal am nga sañ-sañu ne man kii du ma may ut ki may layol. su la neexee aussi nga nangu ko loolu ci moom la dépend. alors maître Khouraychiba yow nga bokk ci avocat yi daal Ndeye Khady Ndiaye ñu ngi ak euh, moom tamit. Ndeye Khady moom Ousmane Sonko lay layool. voilà d'accord maître maître ñu ngi ñu ngi lay nuyu mën nga jege si tuuti. d'accord maître Massokhna Kane voilà